ni euh, question la boo xamante ni comme mu ngi pendant devant la justice sénégalais aussi ils ont besoin de savoir le pourquoi et comment et que l'État prenne toutes ses responsabilités maintenant nag boo li woykat bi doon woy soo defee li la war am li la war comme defloo woon li la war nag ba keneen di ko def yow neel ñuus rek te ñaat na yasar Omar Faye yow nee doo daaneel donc en trente secondes ah mooy gis nga ratax bi ñuy jaay ci réew mi <laughs> en fait lan mooy rattaxunati. bi nekk fii ci réew mi. mooy lan. rattaxun genre jakarta la. Hmm. bière rattaxun. <laughs> cent francs deux cent francs boo ko naanee tu as un instinct humiliable tu deviens un animal. xale yu bëri léegi ci réew mi rattaxun la ñuy na <laughs> rattaxun man maa la ko wax jàppal mooy ma la wax rattaxun. il y a un problème d'éducation de base bu bu ñu bu ñu rafet léegi on a privilégié l'école privée au détriment de l'école de l'école publique. mais est-ce que ça donne le droit ñuy def ay ay ay mooy éducation de base bi ma lay wax. Hmm. c'est pas un centre que Kara créer c'est une école de redressement et cette école devrait être formalisée ça n'a pas été fait. et ça c'est la responsabilité d'abord du ministère de l'éducation nationale te problème bi xam nga fa la jógee xamu tax ñu ko ñu topp CRA en dehors de ce que Moustapha a dit mm. c'est les Américains qui ont écrit autant il faut dénoncer ce traitement inhumain autant aussi ça a permis de redresser des gens parce que am na ñoo xamante ni seen doom États-Unis ñi nekk France ñi nekk feneen nekk dans des situations dañu leen indi ci école bi redresser dañu delloowaat ñooñu waaw xaaral rek ñooñu noonu ñoo bind ñoo dem wax ak seen i parents seen parents wax ak l' état américain l' état américain bind Sénégal bind boobu ñu bind moo tax ñu def li ñu def li ñu def nii tey attention. Mhm. moo tax ñu jël leen dispositions mais on a l' éducation de base moo ñu commencé rester Sénégal nen ne booy takk jabar léegi dañuy wane ay cinq cinq millions la joxe dix millions c' est grave boo takkee jabar. d'abord il faut nga yóbbu ko ci logement boo tekkee jabar il faut nga wutal ko bor <laughs> bu nekkee en état war a war a am doom il faut nga yóbbu ko ci clinique privée bu xale bi juddoo nga yóbbu ko crèche bu crèche jeexee nga yóbbu ko. nga yóbbu ko ci kii garderie bu fa jógee nga yóbbu dans une école privée nga ñëw ñëw demaat mais yooyu moo fi am léegi ci réew mi loolu ñu ko mën bëriwut de ah. loolu moo fi am mais Moustapha loolu moo fi am non nit ñi xam nañ li ma wax am nañu léegi dans ce pays loolu moo fi am léegi ban impact impact mooy lan mooy xale yi actuellement ils sont en train d'être on est en train de les sacrifier les cette nouvelle génération là. e ça ce serait dangereux. Mhm. te loolu tant que commune fi am jeexul. non réew mi fi ñu jëm fi ñu jëm sax kenn xamu ko. taxul dañu ngi taxaw fii di wax guddi bu jot ñu am li ëpp solo ci réew mi ñu di ko wax di conscientiser nit ñi di sacrifier seen i bopp pour que réew mi redressé waat ngeen toog fi ñu leen di tàmmal ay ndaw rabin ngeen yeggee topp ndaw rabin yooyu yaakaar na loolu mooy àdduna. Eh, eh, ah non mais j'ai peur pour cette dina TikTok. arrête de faire genre. <laughs> li ma ciy wax rek. Euh, nee na euh, damay naan que ni euh, non moom moom yëngal ñu ngi lay TikTok. ah kon baax na. mais loolu mais loolu am mooy wan mooy wan suñu niveau d'ignorance bi cest à nga xamante ni léegi moom la ñu mais c'est c'est ça mooy boo waxee am solo pour réew mi duñu tenir compte si loolu. di jël ñoo xamante ne waxuñu ko naan naan man xoolal waxu dof waxu wax. kii naan di saaga kii taxaw naan ay waay yaa ngi dégg ñu jël leen di leen privilégié au détriment de ceux qui font tout pour défendre les intérêts du peuple sénégalais. ah ça devient grave ce pays. ah non ça devient grave. mais Omar Omar loolu Omar dox ba yàgg ñu taxaw naan ndax yor naay tànk rappelez-vous quelques années. am na benn comédienne indienne laa bu fi ñëwoon. way di mais lu ëpp un million de ñoo ko jëlee fii ci aéroport bi nga ànd ak moom ba ci hôtel bi mu dal. loolu moo ñëw bi. Sénégal ñun ñoo bëgg ko nu nax c'est-à-dire ku dara te naxoon rek dañ defe nanga noo war loolu lay problème. <laughs> dama violence ah fu mu mënti jóge mais damay fàttali nii rek que ba ñuy nekk ci élection présidentielle ci campagne buntu siège APR. bien ñi nga xamante ne nañ tuddee Kara sécurité. ñoo doon assurer ambiance beeg sécurité bi. bien te ñooñu ñi ngi jógee ci entre guillemets ci li ñuy tuddee centre de redressement. Mhm. bañ demee Thiès Macky Sall ba muy dem Thiès. ñu ko ko ñu ko ñu ko assuré le cortège bi defal ko euh, benn benn aide d'honneur mhm. mooy ñi nga xamante ne entre guillemets dañuy jógee ci centre de redressement bi boobu temps est-ce que xamoon na ni am na torture entre guillemets am na ko amu ko wala xamu ko woon bu ko xamul kon ça veut dire que ni Sénégal ay terroristes mën nañ fi dugg di fi entraîner def fi seen base militaire te kenn mënu koo yëg bu nekkee loolu noonu mooy situation bi kon y a à s'inquiéter a à se des questions ci ñun suñu xarante bi nga xamante ne dañ koy jagleel ñi nga xamante ne ñooñ suñu force de l'ordre yi beneen bi ñu ngi ñuy wan benn image di ñu naan que ni euh, que foofu dafa am ay genre traitement inhumain dégradant et tout d'accord mais boo demee 100 am na traitement inhumain aussi inhumain aussi dégradant te am na ay bakkan yu fay root. bien sûr prison Sénégal yi ay bakkan ñu ngi fay root prison Sénégal da nga fay jug da nga fay dugg nga jóge fa indi ay blessures yu doy waar Karim Wade dugg na prison mu ni fa nañ demee tànkam mu ñëw procès du suux Assane Diouf ba muy jógee prison si la commencé am problème mu tànk ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante tey jii ci prison dañ fa jël ay cicatrices yoo xamante ni mi ngi si seen yaram. donc bu ñuy wax waxu traitement inhumain ak dégradant bu ñu ko yemalee ci centre yi bu nekkee am nañ ci centre nañ ko dénoncé nañ ko arrêté mais je crois que li ñu war a def tey jii mooy nu ko euh, euh, Cheikh Oumar doon rappelé léegi c'est-à-dire c'est pas des enfants de cœur ni ñuy yóbbu ci genre centre de redressement yooyu man Colobane laa dëkk gis naa ay nit ñoo xamante ni dañ leen commencé woon exclure tuddee leen ay buujumaan parce que dañ doon gens dañ doon jëfandikoo ay drogue ak ay ñaar ñaara mënoon am soit ñu dugal leen ci centre de redressement yi waxuma ni conditions leen teg conditions yu normal la de wala ñu dugal leen ci kaso yi mais léegi yow kii dugal la ci centre de redressement pour redresser la fexe ba kooku dootu naana di sàngara hmm. kooku état war na ko mën a appuyer hmm. formaliser ko hmm. formation bu amee loo xamante ne dañ ko siy ñaawlu ñu dindi ko si gis nga gis nga gis nga Pape Matar man ci connais bi assez xam naa sëñ Modou xam diiwaan gis nga diiwaan bi lii moom man d'accord ma ci li ñu def maanaam ay sant hmm. de redressement man d'accord ma ci hmm. kooku amuñ ci sañ-sañ waaye dafa am leneen lu ñuy def ñi ngi ñaanaam ñi ngi ñi ngi def l'insertion socio-professionnelle des jeunes de des centaines de jeunes di organiser ay jigéen mais papa dooguma la euh, tey sëñ Abdou Karim borom ma axlaa maa je sais que à am na band yoo xam ni boo tuddoon seen tur ñëpp dem tëddi. voilà tey da leen jël. voilà fekkoon ñu nekk gaynde ci mbedd bi mu defar leen. defar seen jikko indi leen. waaw religieux yi. am nañu rôle tey bu ñu parce que bu ñuy wax pouvoir temporel bi spirituel bi est-ce que tey lii nekkul échec gu sunu société. bu fekkee xale yi yar bi ñu leen war a yar ci kër gi rëcc na yaru mbedd lañ dese ba ñu tëw kër gi ba waa kër gi jéngi leen yóbbu leen fi ñu leen yar. que xam nga xale bi moom bu tëw waajuram du jéng yóbbu ko ci benn centre c'est-à-dire ku bay def yëfu délinquance c'est la justice moo ko war a régler c'est-à-dire il si ñu nangu nous dans un état de droit cest dire ki nga xam ne dafa maanaam ay waa waa këram parce que nag boo amee sa doom mu nekk wuyu mhm. tu n'es pas tenu de le garder à la maison mm. parce que nag booy garder doom ju baax ngay mm. bu fekkee dafa na xoqatal say sa njaboot di la menacer de mort da nga koy génn ca biti maintenant nag xëy na bala yoon a ak si foofu xale bi war nañ koo yar parce que gis nga damay wax nañ ku juddu ci réew mi rek Sénégal yore na la ñaari àq àq bu njëkk ba war nañ laa xamal li la yàlla digal ak lim la tere war na laa xamal ni ñu koy def ni ñu koy bàyyee li yàlla tere ak ni ñu di defee li yàlla digle c'est loolu àq bi daf Sénégal daf ko amel àq ku fi juddu ku ne bi ci des mooy war nañ laa jàngal adduna ba nga xam ko ba mën a jànkonteeg moom loolu lépp nag bu fekkente ne la famille a failli état bi failli loolu mooy danger bi centre de redressement bi. pour man surtout conditions yi fa nekk si inactable mais li ci des mooy damaa xam diwaan bi lu muy defal ay nit. di jël ay xale di leen former di leen def insertion professionnelle ñu def ay boulange ay boulangerie di di def di liggéey ñenn ñi di bay damay bañ maanaam situation bii nga xam dafa am ña nga xam ne lu baax rek lañ doon def ci ñoom. ga mu yàqal ko. très bien moo tax man personnellement sëñ Abdou Karim bi nga tudd sànq sëñ Abdou Karim bi nga xam ne ay nit dañ doon nekk ci so ay maanaam di ko tuddoo. mais dafa xëy génn dem dem ca bawal gële dafa ferme bu mag ñoo ña ngi fay dëkk di liggéey liggéey bu yiw bu normal maanaam ñii ngeen gis ci Ndakaaru ñuy def tànku neen ci Ndakaaru ak bopp sax moom du ñu tuddoo maanaam bokkuñ ci waa Kër Abdou Karim ma jàpp ne nag man de li ma ñaan président Macky Sall bu ko mënee maanaam mu xool barab bu yaatu mu jox fa sëñ Modou Kara suuf ñu jàppale ko mu xale yi. tarbiyewu waxuma tànn de redressement mais ñu tarbiye leen. ci li nga xam ne noonu la Sëñ Tuubaa doon defar ay ay ay ay dongoom noonu la Alaaji doon defar ay dongoom noonu la mag ñi doon defar si ay dongoom bu ko defee mën nañ faa jóge am fa métier ñu yar leen yaru diine ba ñu nekk nit ñu baax a baax waaye kenn du leen door kenn du leen toroxal loolu na jàpp naa ne moo mooy li nga xam ne moom man moom laa yéene sëñ bi parce que xam naa ne li lii am naqari na ko boo gisee mu dem ba yàgg mu tuubal boppam c'est que xam na ne rek am na quelque part loo xam ne euh, euh, le diwaan a prêté le flanc et le grave mooy diwaan bi dafa liggéey bu muy def ci xale yi muy liggéey bu baax loola nañ ko continuer maintenant nag loolu li ko mën a mooy centre yi nañ ko tëj mu génn ci ku fi yor sa doom te mënoo koo yar sëñ Modou Kara bu mu dugg ci di la ko yaral ñi nga xam nag ay taalibe yu normal lañ bëgg bëgg jéblu ci moom te mën a génn dem liggéeyal ko ñu jox leen suuf ak accompagnement bu ko defee ñu mën a tërbiyu fa ni ñu doon def di muritu Cheikh Ibrahima doon ko def ak i dongam ak ñi jaayante loolu ñu dellu ci te bañ ay sant daan ay ay ay ville loolu moom jàpp naa du li gën